you ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo tey nag gis ngeen buñ gisee toogaay bi xam ne surtout ndogo bi leen seeti jàmbaar maa ngi leen nuyu. waaw Ousseynou xaw ah, ma siiwal sa tur bi sax xam naa ne Ousseynou moom Ousseynou Karbala maa lay fay doom yaay. waaw mais ci loone waaw maa ngi nii rek ca la ma newoon. Euh, lu war teewaay bi fii nii. waaw teewaay bi mooy xam ñun moom ay taalibe lañ. Mm-hmm. waaw te ay sëtu Rasulullah lañ. Mm-hmm. te moom la ñu yaakaar. waaw déggoo waykat bi naan ba fii rasulallaahi salallaahu alayhi wa sallam kenn du moom tey di bésub gàmmu te guddeem guddi guddeem gi rek la ñu am mhm. ndax ndax ndax ndax ku ñu bind moo tax ñu ñëw fekk la moom yoonam ñu ñëw fekk la fii maire mos nga ñëw toog ci euh, tànt bi lu man mhm. euh, lépp lépp gàmmu ngi boo ko indi daal mhm. waaw lépp gàmmu ngee ko indi di sant sunu sëriñ bi biñ fi fekk lépp daal ci guddi yonent bi la daal. ñu ngi ci guddi yonent bi sallallahu waaw. léegi ñu ñëw ci li fi jot a xew léegi am na lu ma fi gis lu fi jot a am léegi nii loolu mu demee. loolu la loo gis. ah gis. li ma fi gis ñu koy séddale noonu. loolu la. xaalis bu bari bi ma fi gis nii ñu koy séddale. waaw xaalis bi moom. yaa ko gis ak waa Sénégal ak monde entier. Mhm. ndax ki ma ko jox day kenn euh, benn nit boo xamante ne nii. produit sénégalais la sénégalais la. Mhm. muy Mo Gates. nekk nit ku baax. xama nekk ba États-Unis waaw estimé ma bëgg ma waaw yëkkati xaalis bu toll noonu cinq millions may ma ko xam nga dafa doon loo xamante ni euh, lu doy waar la daal ma kontaan ci trop loolu nag laa ñëwoon pour sénégalais yëpp xam ni li muy def ci jàmbur yi njëkkee na ko ci waa këram. Hmm. bërki démb yaa ngi gis Las Vegas mu jëndal yaayam ñaari oto. Hmm. valeur bu quatre cent cinquante millions CFA sunu xaalis. Euh, pour mu ñëw kon kooku lépp lu mu def ci doomu aadama mooy loolu ko quoi. mais noo gisee ak coow li ñu bëree moo gis tey balaloo nit ñi xaalis moo gis moo gis nañ tout récemment keroog bi mu bi mu bi mu invité ñoom Viviane euh, mm-hmm. am na mbër yu génn kaas ne ama Amaneex warul doxalee noonu yoonam nekkul ci li mu gis di def warul xasante ak Viviane noo gisee coow loolu. bi mu amee non c'est man sama problème xam lan la. Mm-hmm. man man man man man man ñi man ku ñuy digaan moo gis ñu ci baari. Mm-hmm. ñu ci baari jaar nañ fa. waaw li nga wax man loolu ma déranger. moo gën waaw. moo gën ñuy wax ci moom bari jaar nañ ci moom. ñam nañ ñam nañ ñoo njëkk a taal lamp yow. mais est que nekkul yow est-ce que nekkul yow. est-ce que lim la jot a may moo tax. taalama lamp est-ce que nekkul la jot may moo tax nga nekk fii taxaw naan ñu ci bari jaar nañ ci moom lamp bi daa mel ne daa burle sax nag. non lamp baa ngi nii di baa ngi nii tàkk. lamp <laughs> nekkul. est-ce que nekkul yow la jot a may moo tax nga naan ñu ci bari jaar nañ ci moom. non man li ma may dama ko ci sant di ko ci gërëm kontaan naa ci torop parce que ñun pikin lañ dëkk. Pikine monument bi nongoloo la. moom moone ku la defal lu baax boo ko waxul buy lim say noon na la ca boole. man mu ngi bu ma bale woon sax garaaw la mais lim ma defal dafa rëy. lim ma defal dafa rëy. waaw ma ci am contentement di ko ci gërëm di ko ci sant euh, ñaan nag li mu am yàlla ful ko yokk ko. amiin léegi bu ñu jugee ci loolu dama bëgg ñu ñëw tuuti ci làmb uh-huh. gis nañ combat Modou Lo ak Ama Baldé te kenn du naataable sa diggante yow ak Ama Baldé nu uh-huh. nga gisee làmb jooju waaw ah, nu ma gisee làmb ji mooy làmb ji moom taxaw na mais amaguñ dat ak yooyu noonu hmm. ah moom li ma la mën a wax moom mu ngi ci ay entraînement am mu ngi entraîné te combat bu mu jëm nii combat bu mu bëgg la mais est ce que xam nga ni combat bu metti la ndax combat bi dafa nekk combat boo xamante ñu bàyyi ne nañ moo ko gën a bare ci lu bari moo ko jàppale moo ko gën a xel mee gën a dal noo de bu ngeen déggee loolu noo koy gisee yow. non ah musul bëre combat bu yomb ban combat moo yomb. ah Baldé moo ko daan. Ah, Ama Baldé ah kon kay lamb lamb la rek lamb du weesu lamb. est ñooñu ak Modou benn lañ yemuñu de. làmb daal làmb la rek incha allah loo xamagul suba kenn du wax lii wala laa sa produit yi ngay xam xam ne sa produit baax na wala baaxul léegi nag leneen li mooy li ci des yàlla moo ko yor yàlla nañu yàlla may ndam si bis ba ci kaw Modou Lo. Hmm. Ah, waaw. yàlla la ñuy ñaan ah. yàlla mooy may. léegi ñu ñëw ci combat bi nga xamante ni mooy diggante euh, Balla gay ak Bombardier mu nekk revanche moo gisee boobu combat. non combat boobu Balla Gaye mooy li ma la waxoon keroon rek. Hmm. c'est mon ami. man maa munul yi gars yi mën nii. comme lan. waaw comme comme yi yi def rek. waaw gars yi di def mooy man Ama Baldé laay àndal. Mhm. est-ce que yaa ngi dégg te ànduñu dañoo juddandoo yarandoo mu nekk sama frère comprendre nga. Mhm. Balla Gaye daf ma defal geste bu rëy waxoon naa ko keroog dinaa ko waxaat. man ci àdduna aw ma duraama ma bañ Balla Gaye ci àdduna parce que am na geste yoo xam ne geste nit ak nit la. man damay ñaan yàlla taxaw place boobu pour ku am tolof tolof moom mën la dimbali. ok parce que Balla Gaye ñëw na fekk ma am problème ba ba déferment war cee xaj ci. Mhm. mu ñëw jël ci ay engagement daanaka sax xaalis boobu mujj koo fay sax mais geste bi mu def moo a neex. dafa ñëw ne alaaji bu fekkee 5 millions moo ko bàyyi ci police bi ma fay 5 millions léegi ñu bàyyi ko kon loolu geste bu man neex la ci moom. merci yow mënatu ba waaw waaw loolu loolu loolu am na ay 4 ans ci ginnaaw mais ba léegi. saa yoo ma déggee turu Balla Gaye rek loolu day ñëw sama sama sama kii. Hmm. waaw. léegi bu ñu ñëwee ci diggante Eumeu Sène ak Modou mu nekk revanche encore lay wax boobu combat. Eumeu Sène ak Modou Lo kañ la. Eumeu Sène ak Lac de Guiers. Ah, bu neex la. combat bu neex la ñun Pikine lañ dëkk. waaw hmm. ah, combat bu neex la. foofu nga ci yem. non fan laa ci yem ful Eumeu Sène yàlla ko yàlla may ndam. ah mu leer rek. non mais dama lay wax parce que wax bu nekk ak tontom. Mm-hmm. waaw Eumeu Sène man maay sel booy bu dëkk Pikine boo xamante ne heure bu ma neex ma neexee ma dugg ko këram fëgg ko su ma ko fekkee muy nelaw su ma neexee ma yee ko lu ma dund ak moom la du xaalis du dara de mais man Pikine dañ maa bëgg daal man Pikine barki Cheikh Fall ñoom dañ ma bëgg. produit Pikine nga nag. waaw man waa pikin dañ ma bëgg adduna adduna Sénégal barki Cheikh Fall su ma amee noonu rek c'est parce que tooguñu man ak moom waxtaan. waaw mën nañ amante distance nag nga jàpp nga wax alaaji lii wala booy bi neexuma wala dara ñu toog nga ne ma baal ma àq dal na ma dalati ma waaw kon man duma ma gaaw si doomu aadama li nekk sama xol bi laay ñaan yàlla euh, kii ba ko waa wan ma ko fësal ko ci doomu aadama yëpp quoi. bu ñu ñëwee ci Tafatine Boy Niang. Tafatine Boy Niang waaw Boy Niang koy conseillé parce que jox naa ko ay ay ay kele ba taay mu daan. Boy Niang bi barke sëñ Bamba waaw mais doo ñu bàyyi nga ne jox naa ko kele ba taay mu daal. barke sëñ Bamba Mbacke billaay am na combat ba taay dama laaj waaj na laa koy def ma ne ko def ko nii ak nii. léegi yan conseil nga koy jox. non conseil yi ko jox mooy combat bi moom nag. waaw tabaatin day bëre tànk xam nga. que xam nga ne yéen a ko daanoon. ba pare euh. booy ña ñëw jël ko est ñaay booy fii ñëpp am ci moom waaw mais la pourquoi pas ndox du bàyyi yoonam day daan war. Hmm. ah gisoon sa combat yow ak Bit Paco. yaa ngi doog a wax combat bi nag. voilà mu gis sa combat seen premier face to face mu nekk face to face boo xam ne face to face bu neex la mais ñu dem ba ci biir déggatuñu dara lan la lu xew déggatuñu dara ci combat bi dafa yàqu wala non combat bi yàquwul mais tamit euh, dari promoteur boo tëggee làmb boo tëggee làmb da ngay da ngay suuxat làmb gi garab kenn du ko jëmbat rek bàyyi ko noonu muy kii danga bëgg ñu koy roose waaw parce que am na yoo xamante ne nii bàyyi fi nit ñi quoi bu yow ñi da nga leen fekk ñu toog nga jox leen sa benn cinq cent mille bëgg leen moom benn trois ans loolu mënul contrat ak ak décharge bokkul contrat mooy yow da nga ma bindal contrat man may woo sa ménagère mu signé côté bi yow nga signé côté bi décharge mooy wane que ni yow jox nga ma xaalis amel naa la deux cent mille jox ma sa deux cent mille nga bindal ma décharge ma bindal la loolu mooy décharge mais munoo jox nit ñi décharge bu ko jaawalee contrat. waaw ah, promoteur yenn saa yi jaawal loolu nag décharge ak contrat bokkul décharge ak contrat bokkul ah. sama actualité ñu ngi si gàmm kenn mënul wax gàmm dama ko diine ñu gis li fi xaw jamono ji Emmanuel Macron am ay propos yu mu yëkkatee ay propos yu teggi daw jamono ko si yoon tamit yow en tant que jullit en tant que talibé loolu loo ci mën a wax parce que ñu gis maanaam ñu gis Sénégal yaa maanaam kenn waxu si kenn kenn gis si kenn taasu en tant que jullit tey loo mën a wax waaw naa ko jullit daf may metti daf may metti comme comme ni muy ni muy méttee ñëpp ni muy méttee ñëpp parce que ñun fii fii fii fii buñ julee rek ashadu an laa ilaaha illallah la ñuy wax ashadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah, particulièrement am na ñoo xamante ne ay sénégalais yu fi nekk fii Mouhamed lañ leen tuddee sallallahu alayhi wa kon kooku luñ ko wax rek njabootam lañ ko wax kooku luñ ko wax daf ñuy metti te yàlla moom moo tax moom moo tax yàlla binduñu waaw kon kooku mooy loolu daal kooku. maanaam autorité yi fi nekk tey maanaam waroon na am taxawaay bu a wax. Ah, xam man sama jàng de noonu quoi damay dégg rek sama comme sama xarit bi ma tey wax nañ lii Macron wax na li affaire yooyu noonu mais man métti lu ko rek laa taxaw mais kilifa diine ñoom xëy na mën am app bu ñuy xaar pour def ci liñ ci war a def. incha allah buñ ci àggee ñoom liñ ci war a def dinañ ko def te luñ sumb rek après Sénégal yëpp ñu ngi seen ginnaaw pour jàpp ci parce que ñun amuñu ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. kon am sa relation ak maanaam Cheikh ak sa relation li xam na ni particulièrement Cheikh bi bu dul affaire u sëriñ sax sunu deret la parce que ñun ay géwél lañ di ko ñaanal yàlla rek mu am conti continuation bu bien ci affaire bi waa lépp ci bëgg lépp yàlla defal ko. waa kontaan naa si te yéen tamit xam nga ma leen di dolli benn affaire boo xam ne pour yéen journaliste yi la quoi pour yéen site internet yi da ngeen liggéey liggéey bu am solo si àdduna mais man damay ragal sax jël sama téléphone wax ak koo xamante ne day def interview muy Ousin mbaa muy keneen. parce que doo xam baxam xam ki lay soxla pour bëgg a génnee sa mbaax kooku yow mënoo ko fay ki soxla pour di la wër di la woo téléphone pour bëgg a génnee sa mbaax il faut nga nekk illettré dëgg pour jàpp ni yow star nga te fii star amul yont bi mooy star yont bi mooy star gis nga dégg euh, nit ñi Sénégal dama bëgg ñu gën a amul xeebaate quoi ñu gën a jàppalante. ñu gën a bëggante te yàlla suñu borom tax quoi ñu gën a bëggante te muy dëgg nag si ñun waaw ñu gën a bëggante ñu gën a fonkante ñu gën a fonkante parce que adduna bi amul solo daal. waaw di gërëm samay ñi nga xamante ne ñoo nekk sama ginnaaw dama jàppale ku ci mel ni Abo Ambu gauche droite mon ami mon frère ku ci mel ni Xaalim Diagne mu Yaasin Dukure borom immeuble bi ku ci mel ni Tafa Diop ku ci mel ni Ama Balde ku ci mel ni euh, Ndiogu. ku ci mel ni Ndiaw ceebu Ifra Këbsa ku ci mel ni Kapiyaas Elu Ousseynou Wade Assane Wade xam nga maa ngi gërëm di gërëm moo. taxaw